kon mbokk yi ñoo ngi am mbégte di leen nuyu di leen ziar di leen balo ak di leen balo ak ñoo ngi fii nag euh, tey ji ci Touba ci fi nga xam ne moo jëm si gaar bi ni ngeen ko dégge woon ci ayu bés bi ci yëgle bu siiw bi nga xam ne nii xalif général des Mourides joxoon na ci ndigal Baye Fall ngir ñu war a seetal nag lépp lu jëm ci fi nga xam ne moo di gaar bi liggéey bi nag euh, tàmbali nañ ko gis ngeen ni ngeen ko gisee nii mboolem matuwaay yi mbooleem matuwaay yi nga xam ne nii war nañ koo jël ci liggéey bi am na fi euh, moo xam muy wàllum kaaraange wàllum jumtukaay ñu tàmbali ko nii nag ngeen gis ko nii incha allah rabbi nii la fas yéene wéye jërë ngeen jëf.